baby. ok yi mbekté contenté bu baax baax ci ñi ñi suivre ci li Sénégal TV comme ñu koy bay chaque jour rek di lan topal lamb ak li ci biir tay nak ma ngi fi nga xam te mooy Fass Benteñi ku wax fi sa xel dem ci Ada face muy ndaw bi nga xam mi ci biir lamb lamb soxla ko lamb bëgg ko lamb yaakaar ko mu nekk ci ay jafe-jafe nekk ci ay natou ku ne xam na ni yoon da ko teg loxo mu wara tedd un an ferme ak un an source ak amane bi nga xamante ni war na koo fay waaye nag tey maa ngi ci koñam fekk fi ay fan si këlëbam ay supporteram ay am di jambam ay mbokkam ñu fa dina taxaw fexe ko soutenir fexe ko jappalé ci li nga xam te moo jaf jafe yi mu nekk pour mën ci génn kon IB damay ñëw ma xol gaay naka lañu fusé euh, fas jappalé ki nga xam moy mooy bi ci bir fas biir Fass rawatina biir Benteñe ah. aja bismillah lañ dëkk di wax ci turu jeunesse wu Gueule Tapée Fass Colobane Gueule Tapée di naan ñepp ñu ngi ci ginaaw aada diko soutenir parce que tay aada nekatul mbëru fas kese nekatul mbëru Ndakaaru mbëru Sénégal la ñu ngi ñaan képp ku si mën a def euh, euh, ñaan rek pour aada génnaat si jàmm rek génnaat si jàmm ñu ngi waat képp kuy autorité ñu am yaakaar si yow ñu ngi lay tàllal suñu loxo nga jàpp si ba booy bi mun a génn si jàmm waaw parce que tey soxla nañ ko tey mbër la bi nga xam ne tey yaakaar nañ ko ay waajur yaakaar yaakaar nañ ko waa Fass yaakaar nañ ko waa Dakar yaakaar nañ ko waa Sénégal yaakaar nañ ko. wax nam nañ ko torop àdduna ñoo ko namm aada nekkatul aada nekkatul Dakar tey aada Sénégal la ñu war a wax aada Sénégal la ñu war a wax wala ñu ne aada mondial barki yàlla dañuy ñaan nag dañuy ñaan ñun dañuy ñaan ñun aada rek lañ am amuñu keneen ku dul moom amuñu keneen ku dul aada Fass ñun moom rek lañu xam moo tax ñun ñu bàyyi suñu lépp di dugg si làmb xamuñu woon làmb daan ñu ko sax fooy ñun fii nawetaan lañu xamoon buñ daan dem stade doloon moo doon tax wala yenn équipe bi nekk si quartier bi mais tey jii bu ñu demee ba di dugg di suivre làmb c'est grâce à Ada moom moo tax barkaal di ñaan di ñaan ñi nekk ci ginnaaw képp kuy kilifa dëkk Fass te di bëggee Ada Fass mu def geste benn geste geste la affaire bi geste la quoi geste bu nice maanaam toog wax tey yi rafetul Gris fii la dëkk tout près Medina boo sëkkatee ñu dégg la Medina Fass benn la tey Ada bu nekkee si tolof tolof Gris Bordeaux dafa war a ñëw taxaw ñu gis ko wuyewul écrit Medina de écrit Fass lay représenté Ada Fass écrit benn bennoo la nekk kon tey Ada Fass bu nekkee si tolof tolof Gris Bordeaux daf ko war a soutenir ne Ada Fass yow bàyyi na léppam si jouru combat Gris Bordeaux demal ko stade supporté ko dégg na si wax bu nekk mais teewul dem na stade soutenir ko amaana sax moom su yow soutenir na Ada Fass mais tey jii bu Ada Fass si tolof tolof daf ko war a si daf ko si war a jàppale waaw maanaam boo déggee gars yi di wax gars yi maanaam waruñ gars yi war waruñu woon taxaw fi sax di wax Gris Bordeaux Gris Bordeaux Gris Bordeaux maanaam moom dafa waroon def geste boobu noonu taxaw wax ndax moom mooy président yow mbër yi nekk activité kon tey jii bu benn mbër nekkee si yow si si tolof tolof dafa war a génn a taxaw wax moo tax gars yi ñëpp moo tax koo dégg rek day ne Gris Bordeaux dafa war a génn wax ñëpp même chose dañuy wax ñëpp même chose dañuy wax Gris Bordeaux dafa a génn wax te loolu du yoon Gris Bordeaux warul xaar gars yi di ko lancer appel naan ko Gris Bordeaux génnal wax wala defal lii dafa war a génn avant ba mu déggee problème bi la war a génn toog wax ak nit yi soo xoolee boobu ba léegi xoolu kenn féexul ñu ñëpp kenn nekkul ndax ñu ngi am loo xamante ne dafa ñuy métti aada bokk si ñun aada suñuy fierté la Ada futur roi la nit boo xamante ne defoo yëgoo tinoo ñu ñëw tey door la un an metti na trop metti na trop trop waaw. Euh, defoon ay jéego la bokk yoon bàyyi ko mu ñëwaat si yéen naka ngeen ko fas yéene teewee tey. suñu bëggoon. maanaam su Ada ñëwee naka ngeen ko fas yéene teewaat. waaw ah kon ni ñu ko mos kon ni ñu ko yàgg teewee rek. Ada moom mosu ñu tegg loxoom suñun ndax Ada suñun la bokk suñu frère la suñu doom la suñu xarit suñu lépp la di ko ñaanal yàlla jàmm mu génnaat si jàmm ba ñëwaat si ñun ñu teew kon ni ñu ko daan teewee ndax moom amul dara lu dul Fass Ndakaaru lay représenté aada kuy payee ko ay millions yi millions xëy na ay agressions yi yenn détails moom doo si dox dañ koy tuumaal yoon teg ko loxo ñi ñaan nag autorités yi nekk Fass Ndakaaru jiite Abdou Aziz Paye maire maire Fass Colobane Gueule Tapée ji ko si woo Bamba ñoo ko si woo bu baax a baax a baax ndax moom yaa gën a taxaw fépp ne aada doo moom la aada si moom la nekk lépp lu ma xewle maak aada Fass ñu dem ba si moom di ko taxaw di ko jàppale tey am na loo xamante ne bu dalee sa doom ki nga sa doom la am na loo xam ne bu dara dalee ci koom yow yaa war a yëkkati say tànk dox si wax si Bamba Fall ñu ngi koy ñaan autorité yi nekk fi yëpp ay Thierno Ndiaye ñëpp ñu ngi leen di wax ñu xam ne mu nekk nii neexul kenn aada avenir làmb la avenir u Fass la Ada Fass dellusiwaat ci lu mu gën a gaaw dans le plus brefs délais parce que tey jii am na loo xamante ni peut-être nit nit la quoi am na loo xamante surtout loo xamante ne dañ la ko dañ la ko tuumal defoo ko kon tey jii ñoon dañ koy ñaan rek ñu li ñu mën mooy ñaan yoon si wàllu Gris Bordeaux moom li ñu siy wax mooy Gris Bordeaux dafal na koo xamante ne dëkkul Fass dëkkaanul Fass du ma tudd turu mbër mbër am na fi problème mu jël ko en charge ba tabaski moo ko jëndal xaru kon tey jii moom day woote ne Ada tey jii am na loo xam ne sax waroon xaar ay nit di ko si wax bu muy Gris Bordeaux di bépp ko xamante ne muy mbaru Fass ñu ngi kontaan nag ci ñi nga ne tey jii wasu nañu seen ax ñu si kontaan leen wax ne xam nga rek ñun moom lépp suñu itee la mooy firi Ada Fass quoi ah. xam ne Ada fas doomu réew mi la doomu Sénégal la du ma wax doomu Fass doomu ndaxaaro la ba pare te produit làmb la man waxuma sax que ni du ma wax sax que ni waa Fass ñoo ko war a soutenir mais làmb ñoo ko war a taxawoo commencé à pas seen CNG ñoom buñ gisee seen doom nekk ci ay xat-xat ay tolof-tolof war nañ comme buñ buñ juumee ni leen tegee ci yoon war nañu mën a jël jox seenee tànk soutenir xale yi jàppale leen ñu ñëwaat ci société bi du wax Gris Bordeaux damay wax ak Gris Bordeaux ñoom Balla Gaye les VIP laay wax Balla Gaye soo waxee ne a Ada Fass xaritam la jafe-jafe ñoom ñëpp war a génn soutenir ko taxawu ko jàppale ko pour mu génn ñëwaat ci société bi parce que Ada Fass fee mu nekk du place am mooy place te dafa bokk ci làmb ji nekk ci ci contrat nekk ci contrat war a bëre bientôt ñuy tee fee tamit dañ koy ñaawlu daal te waaw ñu ngi wax daal waa làmb laay wax làmb man du ma wax du ma wax Sénégal mais làmb laay wax ñu ñëw jàpp ñu ñëw jàppale ko mu ñëw fii ci société bi yeggale carrière am bëri làmbam yàlla defal ko lu gën ci moom parce que ñun roi des arènes la ñuy séntu ci moom roi des arènes la ñuy séntu ci moom te bu ko indee fii Fass la ko indil Colobane Medina Gueule Tapée Sénégal la ko indil te gëm nañ ko te yaakaar nañ ko ci moom kon ceer ñu ngi ci woo ñëpp di wax ñëpp ñu jàppale ko am na nag ay ñu koy jàppale te bëgguñu di tudd ñu seen tur wax koy tudd seen tur vraiment ñu ngi leen ciy a a baax dañu wax ne neen koy a baax a baax Thierno. saa yu ma man saa yu ma ñëwee Fass Ada Fass moo tax mais dama toog di dégg ay rumeur na Ada Fass jàpp ko nii ak nii ak nii man ba lii may wax ak yow keroog bu ma demee Mbour laay soog a gëm na carrément Ada Fass jàpp nañ ko parce que Ada Fass am na kersa boo xam ne rus naa def lu bon barki Serigne Touba man suñ tegoon kaamin balaa ma géej suñu tegoon kaamin ne Ada Fass moo def lii ma leen la mënut a ne te ba léegi góob ne Ada moo def te duñ ko mës a gëm parce que wanu ma kanam boo wanu ma ñàkk fayda boobu kii encaissé ay millions nga dem di dóor ay jakarta ay SH nañ waxante dëgg quoi nga jël 10 jakarta di ko may ay doomu jàmbur pour ñuy liggéey nga dem di di agressé loolu ki ko wax waroo ko mën a gëm quoi. mais tamit damay ñëwaat si kaaw Gris Bordeaux Moustapha Gueye nañ jàppale booy bi te xam ne booy bi xoolal référence la booy bi royukaay la biir Fass yàllaa ko tàccu dañuy nangu lu yàlla dogal Gris Bordeaux moo fi nekkoon te ba léegi mi ngi fi mais booy bi dafa xew nañ ko jàppale te yàlla rek tax te booy bi dina génnaat dina delluwaat si waa Fass te waa Fass dañuy xam ne carrément ab champion te aada xale la aada trois trois ans six mois la def si làmb yombul loolu yëpp yàlla moo ko dogal mais nañu sant yàlla te xam ne la xoolal lii di ñëw mooy daax man gëm naa nag aado si génnaa tey day nekkaat aada boo boo woon te day ñëwaat incha allah si kàttanu yàlla gars yi si jàpp te yàlla rek tax justice bi nañ ñu dawal yërmande indiwaat suñu doom te yàlla rek tax dañ ko soxla aada Sénégal la ko sox du Ndakaaru du Faas Sénégal moo ko yitewoo ñun dañ ko yitewoo ñun man damay jógee ba parcelle ñëw ba fii ndax kan aada Faas ñii ñëpp samay raxalañ barki Serigne Bamba. nga xam ne am na yëpp ngeen ko dundee ak naka ngeen ko gérer tey. billaa ku ne méttiwul rek daa fekk dëkkoog Ada Fass wala amoon loo leen sekk ñen ñaar même boo leen sekkul sax dina métti yow suñu yaay yu bëri xamuñu Ada Fass mais dañuy jooy chaque jour ñu may ñaanal yàlla seen mbër bi génn yàlla seen mbër bi génn ma ne ko yaay jërëjëf waaye li dafa métti trop billaahi bu ku ne méttiwul rek billaahi mooy loolu. door nañ ko un an tey en tant que frère tey noo ko yëg. loolu dafa ma jàpp ma xam ni jàpp na ma maanaam amaan nañ sax moroñu andi firi nit nit rek la mun doon li natu la rek natu bi gëm ni yalla suñu borom dina ci def ndox bu sedd yalla nañu yalla sutural teggul ni natu bi ni arafas genn ñew ci jamm ñu amuñu keneen ku dul arafas arafas mo ñu ñor mo suñu ñité manam fas dafa rëy ya gëna na del keneen ku dul arafas kon du tay lay ñëw baña a plaider arafas Fass Gris aj nañ ci mbeur mu del ko ñaanal ko def gën def sorti arafas fi la def ben émission ne balagé sama père giribodo Bordeaux génn kaas waa kas wépp kaas fa la mujjé solti set giribodo wani giribodo man doomu dëkk bi laa sama grand nga ñew diri diriger convoi dem manam natou boko ci féké quoi lu mënul ñaak la bañ ak Lamine ñoo dëkk légui da ngay ñew nga gën def sa sorti comme ni nga ñaanalé ñene nga ñaanal sa doomu gox manam amo lu sa gox Gris Bordeaux amul lu goxam mom la kay wax suñu grand grand bu baax la waaw kon na gëna nafa rafet rek dafa yag rafet mais tay na gëna rafet mu génn def sorti ñaan président mbeuri lañ ko jox lu mus loolu dafa dis billahi mais na jappalé suñu mbeur mi ara face génn defal ñu sorti di ñaan otorite yi nekk ci ndakaaru bi yépp pas ndakaaru sa Sénégal bi ndax doomu Sénégal lañ japp waaw na doomu Sénégal lañ japp na ñëw autorité yépp génn ku nekk tek ci sa loxo waaw dem ñaanal mbër mi kaddu Alioune Sall ñu ngi lay woo ngir yàlla doomu Macky Sall kenn mu solaay man maa génn télé pour ñaan la ngir yàlla war a suul ñëwal nga ñaamal ñu intervention Amadou Sall intervention si suñu mbër mi waaw incha allah yàlla teggil ko natu bii. aada bu defoon du ma dem du ma dem tribunal ba dem police am naa fulla woowu am naa fayda boobu kenn mënu maa dundal maa mënoo dundal gisoo fi booy fi ñàkk fay ñëpp dañ bàyyi seen liggéey abaa ñaara sànce la bàyyi ñëw booy seen liggéey lañ bàyyi ñi daw jànguñu a rax aada réew mi toll na foo xam ne tey boo waxee ñu sikk mais aada ah son boo xam ne ku mayee essuceur mayee ay ay jagarra génnee xaay di ko joxe ku lan la doy essuceur aada bu laajee essuceur ñu jox ko essuceur aada ñaar oto la dawal si xale ñaar oto la aada dawal si moment dawal ba ñaar lay jar ñoo ko wàccee ñoo ko dawal moto kon am na loo xam ne dafa rafetul dafa neexul dégg maam aada laalul jegalul man dama dama jommi xam nga dama jommi damaa dem taxaw tribunal ba ma affaire dafa mel ni léeboon lippoon amoon na naan naanaan man dama taxaw maanaam juge bi lu muy wax naan toppee ñu ko dara ki ñu jàpp ne du kii ñu pompee ko pompé ko pompé ko pour mu wax waa ji xamul aada mbur la dëkk mu ne leen kii agressé wu ma ndax ku ma agressé dama ko daaneel dugul lu baax lu ma lay wax man lu may wax damay bëgg mu dégg dama ko daaneel aada kooku mënul daaneel aada ko 7 kilos 500 la waa ji na moo daal aat moo moo daal ko agressé keneen ki daw gars yi na jeex na ñu war a ñëw taxaw ñu bàyyi ñu dañ doon tub jëli suñu doom man damaa taxaw dañ taxaw nañ ne doon nañ aada un an man damaa doon si yàgg ma ne kii abaa yéen dañu génte wala xaayam da leen génn ma ñaan leen génn un an la mooy un an ñu ne ma leen un que ñaari tour la Adama Ndiaye Adama Koraya ma leen non yéen booy bu leen werante dañ fa mujjee toog ba 17 heures ba juste ba ba bi jeex ñu dem si avocat bi avocat yi wax ñu loo xam ne tam maanaam nañ ko dégg ñu ñaan yàlla sorte yi ñu ngi koy jox nañ ko def ñu xam aada wax yi nañ xam ñu juróo aada maam ñëw faas loo yëndeewul rek gis koo xam ne Medina la juddoo wala mu juddoo ñàkku rab xamul dara si aada ñëw nga ne non aada la moo ko def kan mu mës a jàpp loxo aada si loxo si poos ma du ma ànd ak kuy sàcc ceer aada musul soxla alalu jàmbur ah lu koy dal lu ne rek pibil la ak bëgg ak yëg xëy na booy wax nañ lépp ak njaboot ah dafa bëgg famille kii du ma bàyyi ma seede kii doy na ma seede ah da loolu def benn lasu kulu kóol yaayam soxla xaaj moo kii ànd kii dem jaay ko dem jëndee ko yaayam kon bu ñu ne aada bëggul yaayam dama may jaaxal aada amul staff kan moo ëpp aada espèce lamba amul. gars yi dañuy jaawale staff ak bëgg a siiw ak bëgg a siiw ak bëgg a génn booy soxla ñu caméra booy chaque jour dañuy daw caméra bi. te bi ñu ko sañoon chaque jour site bu ñu woone Ada Fass lañ soxla ñu ñëwee dañuy wax booy bu ñu waxee rek xol la ñuy waxee ak ak jëmm tey booy dañ lañ dañ lañu dooleel dooleel mooy lan na mag yi génn parce que doo cité mbër lamb dafa fi dama nekk si lamb boo cité mbër ne war na jàppale aada rek jàppale du pala force mais ku si am yëg-yëg jàppale ko nga jàppale ko aada moo mbëri mag yi mais xoolal ay Modou loo ay Ama Baldé ay Tapha Tine Balla Gaye fu mu dëkk Lirou Ndiaye fu mu dëkk. damay gis Balla Gaye man da personne man day dugal Ada Fass seetu gis naa ko. rek. ada moo neex bëgg mbeur la saa mbeur bo boo gisee mbër da lay bëgg ne mbëgg bo nekkul mbeur bo boo gisee mbër doo bëgg mbër daanaa njaago fu mu dëkk da koy wax bay joy interview yu wax ak yeneen ak yeneen ondu fu fou aday sootem xolal leen mbeur bo nekk ci ben gox ñu xam yow mbeur nga jappalel mbeur boobu ci ay wax mais du ay jëf man goma tricher manam mu toy nga ñew xawa salé ndakar na bëgg na dëgg bëgg ci xol la ceer billahi wallahi tallahi amna lo loo dafa dafa ñaaw ñaaw mooy lan yow man xam nga lépp man nekkuma si ay caaxaan si lamb la nekk mais nañ jàppale booy boo gee am na lu ci luus tuuti parce que mënu ma gëm renvoyé renvoyé taxaw juste taxaw ne bàyyi nañ la nga ñëw taxaw ñu la un an si xale bu ndaw un million cinq cent pele ñaaw ne moom kii deful kii ànd na kii deful kii décharge na ko ah dama ma déposé ah dañ ko déposé bal péddi moo ko dal coup péddi moo ko dal si di remercier site yëpp di remercier di remercier booy idaa bi ñu def bu ñu bu ñu def nii maanaam ñu waruñu woon sax wax parce que xamewuñu yenn wax yi mais lépp si ñu ngi koy jëf pour aada mën a génn te incha allah si kàttanu yàlla ñuy woo ñëpp am nañ si yaakaar ne booy nañ dese seen xol rek bu ñu waxee xol dañ leen mag mais li leen jiir nañ def nànk rek te xam ne mbir kaay ma wax kenn du ko def lool nit nit mun nga ko forcer wax loolu mu bëggul wax te amul envie wax parce que gis nañ fi mu jot a xew bu mu jotee def première sortie ñëpp a génn ñëpp ku ne bëgg a siw ñu bëggee ñu aada siw aada la dañ juddoo Fass yoroo Fass di doomu Fass di nekk produit Fass amuñu leen lu dul gën faas lu ñu am fii moo ñu ko gënal mais nag am na loo xam ne nag dañuy sant yàlla bu baax tànk dal na ko mënoon na xëy rek dee mënoon na xëy cool yi bëri na aada cool yi dafa bëri day dem cool yi bëri bu ñëwee cool yi bëri aada bu romboon fii léegi mu ne aada la xale yi xoolal xale yi ñëpp day xoolal interview xoolal booy yi dañuy nangu dañ gën dégg aada nag dégg asiko ñëpp ñoo taxaw da lay jël li xale nday aada affaire xale la ñuy siyaar ñëpp nag di baalu àq ñëpp nag merci waaw ah, ñun dañuy sant yàlla rek xam ne aada mbindeef la bu yàlla nattoo mu dëkk faas maanaam dëkk faas rek nattu la faas mooy mbër bi nga xam ne mooy un contre tous kuy mbër si kër àdduna yaa ngay reebee bëreek doomu faas te bu ñuy wax doomu faas mooy aada faas juddoo faas yaroo faas màggee faas ba rek ñu koy sante yàlla aada dafa nekk koo xam ne maanaam booy la xëy rek tàkk ay nattu nag day feeñ fu ne nattu day feeñ fu ne foo ko soo ko soo ko sóoraalewul sax day ñëw nga bëgg ko mu ñëw nga bañ ko mu ñëw moom daw na ko fu ne daw coow ba coow fekk la looloo dal aada mais ñu dañuy sant yàlla daal parfois da ngay toog ak nit sax mu naan non aada ñi muy àndal ay booy mam booy xam nga kan mooy booy ku am 15 ans. mooy boo rombee vingt ans rek responsable nga mën nga ne lu ne kon aada du xale ñi mu àndal boo xoolee du ñu ay xale ay magum jëm lañu ay responsable ku yore jabar ak doom doo xale nest donc lu war a dal loolu mu def ci dara aada nag dafa nekk koo xam ne lépp lu mu dugg rek yàlla ci def xéewal jamono yi muy góolu fii kade xam nga ne ko fekkee benn année rek day finaalu donc mu nekk mbër boo xam ne man de man man man man man coach naa ko man bi muy bi mu nekkulee dara laa nekk grand ba tey jii nii donc mun maa wax lu bon ci moom parce que xamul ma ko lu bon na wanu ma ko xam nga bëri na doole wanu ma ko li mu def daal man wanu ma ko du bëri xaalis du dara lu ma won leen lañ séq maak moom leen lañ séq ma moom grand Memba ça va aada ça va dèjà sax man maa koy ñàkk teggin parce que moom ma naan grand te man dama ko naan aada comprendre nga donc de ce fait que ñun lii dañ jàpp ne jaar-jaar la rek mbindeef ci kaw suuf yàlla da lay teg nattu lii nattoom la mooy da cee waroon jaar jaar-jaaram la fu mu mënti dem da ciy jaar xëy na lii nii la woon ñuy ñaan yàlla ñun ñu ngi fi ñu ñu ngi ci ginnaawam mu nekk fële ñun ñu ngi fii di liggéey li ñu war a liggéey ci ginnaawam di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér gu yaram parce que loolu la sportif laaj entraîné lii di ñëw dàq li fi li fi am na ñu la bëgg am na ñu la bañ ñëpp mënuñu laa bokk bëgg nag fi nga dëkk mais ñu ngi koy sante yàlla mooy aada na xam ne ñi nekkoon ci ginnaawam kenn manqué wu ci ñu ngi liggéey lu lu mucc ayib nga xam ne bu ñëwee incha allah dina fekk ñu ñu pare daal. pour champion daal moo nekk si moom te làmb yëpp xamee nañ ko champion amul mbër buy jóg si àdduna te ñaanoo yàlla bëreeg Ada fas waaw moo tax ñuy ñaan nag yoon di ñaan CNG di ñaan mbër yu nekk si mag yi Gris Bordeaux di la waat di la waat. yeneen mbër nekk nañ fi am problème nga leen di taxaw ñu génn di la gërëm dala war a si Ada Fass dala gën a waroon jekkee parce que nga Ada da ngay open press mu dem Ada Fass premier kasa bu ñu koy njëkk a jàpp sa làmb la woon bu fekkee yaa ngi koy rappelé ko bu baax sa làmb la woon yeggul sax estat Ada Fass làmb Gris Bordeaux la woon bu fekkee Ada mu ngi koy fàtt Gris Bordeaux mu ngi koy fàttali ko bu baax kon moom war na xool loolu dafa si jeego muy def open press terrain chantier Ada ko feneen ak feneen kon boog moom si si moom la war a njëkkee daal quoi man gir Gris Bordeaux dama koy blâmer si loolu. ba mu ko si blâmer bu baax a baax a baax. mais tey Ada nekk si yoon nekk ndaw tey làmb jox ko bopp tey mu am lu lu nga xam te ne bii am na ñu ko jiitu ci làmb amuñu ko tey bu ñu ko déggee ci lii su ma ñu dégg ko ci lee loo jàpp ne moo koy indil. waaw dañuy sant yàlla rek sant yàlla ba pare parce que bu jugee Ndakaaru jug àdduna jug yàlla mooy fal njiit nit mun nga nekk dara di ci yëngu 10 ans sunu borom du la ci kenn ñëw def si un an suñu taal ko ba nga naan nii lu mu doon fekk na du yow yàlla la. waaw moo tax euh, gis nga ndaw boo nekkee si yoon lu bëri da ko war a sóoraale xam fooy se teg sa tànk. xam fooy lu teg sa tànk te foo njëkk teg sa tànk gaa am moom la ne la baaxul. yow loolu boo tëddee guddi war nga toog xool xool xoolaat ne ah ñii bëgg moom moo tax ñuy wax ak man si lii da xam ne fu ma teg sama tànk baaxul. waaw loolu rek lañ koy soññ di ko si soññaat ne ko moom dafa war a gën a bàyyi xam ne moom adduna euh, moo demee noonu gars yi mun nañ la wër te fekk na yow mille yu la wër yëpp dix si ñoo si bëgg sa victoire neuf cent quatre-vingt-dix yëpp sa defet lañ bëgg waaw loolu nag loolu laa bëgg mu koy doxee di ko jëfee waaw di ko waxee di bàyyi xelam chaque fois waaw di bàyyi demee birut xale la xale la moom yaram dafa tàng waaw moom daa jàpp ne lu ñëw si àdduna bi da ko war a mën a téye te dëgg la mun na ko war a téye mais da koy teg si yoon di déglu ay conseil di ñom ñoko wara gëna mëna a taxaw parce que tay ji ni Fass la quoi bu ñu waxee dëgg rek fas la waaw te aara dafa aara bu ñu ni aara dafa nekkoon écurie fas ba muy nekk xalé dafa nekkoon écurie Fass waaw écurie fas jaraloon ko lu né muy défendre couleur bi kon tay ji ni natou bu ko dalé kon ñom war nañ ko mëna gessu waaw di naan mention spéciale Laurent Diago Laurent Diago fa la dëkk suñu adversaire lañ te tey dafa génn wasu si ak wax ci lu rafet mu wër aduna Laurent ñu ngi koy ñaanal jàmm Gayane Laurent Gayane day comédie nii rek mais nit la te bu waxee waxu nit dëgg lay wax waaw loolay àdduna quoi nit dangay yéene sa morom parce que nit tey ji aada nekkul nekkul ci biti dafa nekk ci ay nattu ak lu munti am ak lu munti am waaw nañu rafetal rek te yéene ko jàmm Alliance bale tamit wax na ci wax bu rafet wax na ci wax bu rafet waaw te tey jii nii ñooñu dëkkuñu fi de waaw mention spéciale tamit mbëru Medina yi mbëri yi nii ñoom Ibou Afia bébé Diène waaw ñooñu wax nañ ci lu nice quoi waaw wax nañ ci lu rafet a rafet waaw billaahi naa ci yow waaw ñuy kontaan bu baax a baax ci presse bi waaw di gërëm ñëpp di gërëm ndakaaru Ndiaye Jal Diop fukki penceeg ñaar yi di gërëm ñëpp di soññaat mbër bi di ko soññaat aada ndakaaru gayan waaw comme ni ko Xaadim waxelee rek njiit yalla mo koy def yalla moy xol lu ko neex mu def ko ci doomu adama aada li mu li koy li mu am ni du mom de du jambaram du daram de yalla sunu borom moo ko wow, waaw yalla sunu borom moo ko namm ci mom def ko ci waaw kon tay jii nii dañ ko koy nangul quoi dañ ko koy nangul waaw di gëna soñaat diko di ko naan tey jii amul lu kon mom na delu si faas delu ci ay mbokam waaw delu si ay mbokam ñu ngi leen di jaajeufal bu